salaamaaleykum internautes yi nuyu nañ leen ziar leen ñu ñëw ci yi du Kalidou yi gannaaw ba Chelsea officialisé ñëwam ci club boobu coéquipier ca Chelsea di Timo Werner àdduna jëmale ci transfert bi nga xamante ne Chelsea bouclé na ko wante laata loolu dañuy wax ñi gan ci page bi te abonné ñoo ngi leen ñaan ñu abonné te bés cloche de notification bi ndax bu fi bàyyeekoo ngeen bokk ci ci njëkk a jot waaw doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly dem na ca club boobu di Chelsea lépp yemb na xaatim na contrat bu tolloo ci ñeenti at jamono yi ma nga foofee ca États-Unis ca Las Vegas ak coéquipier yooyu noonu noonu di fa entraîner di waajal dugg ci saison deux mille vingt deux deux mille vingt kon jamono yi daal lépp yemb na dina jàppale waa Chelsea ca liggéey ba wante gannaaw ñëwam ci club boobu di Chelsea koy ci PM di Théophile Werner nekk ci club boobu di Chelsea àdduna jëmale wax ci ñëw Kalidou Koulibaly ci club boobu di Chelsea ma ngay wax day Kalidou Koulibaly défenseur bu baax la dina joxaat doole bu baax a baax suñu défense bi dina dëgëral këcc ci suñu défense bi ndax danañu jàppale ci liggéey bi ndaxte Kalidou Koulibaly day jënd gi ko jënd Chelsea baax na loolu ci ñun man mii de xam naa ci dara ndaxte daje naa ñoom ak li ca Ligue des Champions wante ba ma dajee moom de métti na Kalidou Koulibaly défenseur la boo xamante ne am na kattan te mën na li mu def te bëgg na ko te gëm na ko moo tax kii rek la si soxla woon ngir renforcer waat défense am gannaaw bi nga xamante ne am na ñu bëri ñu jóge ci club bi ku ci mel ne Antonio Rudiger nga xamante ne dafa amoon taxawaay lool ci biir défense mooy wax daal Kalidou Koulibaly daal dina dooleelaat suñu défense bi te soxla woon nañu ko te dinañu jàppale ci liggéey bi jàppale ki nga xamante ne mooy coéquipier am di Thiago Silva ci défense bi kon daal Kalidou Koulibaly ñu ñaanal ko ndaxte mu def saison bu baax ak Chelsea kon mbokk yi loolu la woon di wax ngeen abonné bés cloche de notification bi jaa ngeen jëf